alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أعز بيوم بدر الإسلام والمسلمين وأذل فيه الشرك والمشركين مع قلة عدد المسلمين وكثرة عدد المشركين والصلاة والسلام على طلعة الحق بالحق ناصر الدين الحق بالحق وعلى آله الشاهدين وأصحابه المجاهدين والتابعين العابدين وتابعيهم الحامدين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yow borom bi subhaanahu wa taala yow yàlla yow mi nga xam ne yow yaay borom kenn borom ku yow ak yàlla sag yàlla la nguur gi sag nguur la sañ-sañ bi sag sañ-sañ la coobere geeg nommeel gi sa coobere la sa nommeel la yow yàlla yaay buur ba nga xam ne sa njëlbeen moo di cay amul tàmbali qadimun azaliyun yaay buur bi nga xam ne amoo jeextal daa iman wa abadan lépp fi la la fekk lépp fi la lay bay yaay ki sàkk yaay ki sos yaay ki amal yaay ki nekkal yaay ki mellal laa ilaha illa allah nekkul musta nekk te du nekk mukk buur boo xam ne jaamu ko dana jur njëriñ ñàkk koo jaamu di jur lor amul gudul yàlla subhaanahu wa sa jaam képp yem ci sa jaam kese kese kese yam ci dajawaat na ak i moromi jaamam kese yam ca ci benn say néeg di fàttalikuwaat yenn say bés yow amaloon ci sa biir mbind gi di la ñaan yow yàlla fa nga toll nang ca tolloo ni nga mel nang ca melee sa kattan sa doole sa xéewal ñu ngi lay ñaan yow borom bi subhaanahu wa taala nga sotti ko ba muy baawaan di walwali ci kaw sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëmm joo xam ne Euh, ku mel ni moom yàlla musu ko amal te ku melati ni moom yàlla dootu ko amal cappaacooli la woon kenn la woon ci mbindab yàlla gi dootul nekkati mu sallallahu alayhi wa sallam képp ku yéeg ci yonent bi nga yéegee képp ku yegg yonent bi la gunge képp ku daaneel yonent bi moo la ngemb sallallahu alayhi wa sallam kenn amul yàlla budul ci yonent bi nga jaar sallallahu alayhi wa sallam waaye kenn ñàkkul yàlla bu dul yonent bi nga xalab denc moom yàlla denc yow ñu ngi ñaan loolu yàlla na wéy ci ay saxaabaam wéy ci ñi topp saxaaba yi ña topp ñooñale yàlla bu loolu dakk mukk bekk rek yàlla di daj ak jaamam yi yowmal qiyaamati ñu ngi sant bokk jullit yëpp ci seen teewaay ñu jóge ci ay bërëb yu fasantiku ci ay gox yu wuute diiwaan bu nekk gox goxaan bu nekk donte benn jëmm la ngir cofeelam ci sayidna muhammad sallallahu alayhi wasallam tax na mu sol dàllam yegg si fi gis ngeen sànq jóg naa gàttandu benn jëmm njobooti maam alaaji abdullahi ñas la waaye njobooti baay la ak li muy mage daawul teqali kook sëriñ bi gis naa ko rek wallahi ba rongoñ di toq te ko wér mayu ko mu dikk fii at mayetu ko mu dikk fii wóllëre baay yépp teew nañu kenn mënu leen li mu njeex amul benn kër ci réew mi bu dul am na ku la fi jëmmal fa allahu yujaazikum xayral jaza wallahu yubaarik fiikum bés bi nag yàgg nañ ko fi daje di dundal bés bi te mooy bésu badr bés boo xam ne bu ci lislaam échegoon bu ci lislaam yonjaxoon mooy tekk ne islaam jeex na fa la doon yem waaye nag shaa rabbul arsh an laa yakunu zalik borom aras jël ci ay motuwaayam ne loolu du am mukk ngir yonent bi sallallahu alayhi wa ak fitam yonent bi ak njàmbaaram yonent bi nekkam di yàlla waaw nekkam di yàlla yonent bi xamul ku dul yàlla gisul ku dul yàlla amul lu dul yàlla waaye yonent bi kero ba mu gisee julli di seen lib ni mu néewee ak yéefee yi ni ñu bëree ak la yore ci ngànnaay yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa téen arshu rahman ne ko ey sa ron asamaan sii sa kaw suuf sii amul ñu la fi gëm tey budul mbooloo mu tuuti mu néew mi yàlla boo seetaanee yàlla boo yalangalee yow yàlla boo neenalee boo bàyyee ba ñu faagaagal mbooloo mu tuuti mii nanga yëg ne ku la gëmati nar laa jaamu desatu ci kaw suuf si li sayyidna muhammad wax ni in tuhlik haazil usaaba min ahlil iman boo alagee mbooloo mi ci ñooñ gëm la xamal ni ci kaw suuf amatoo fi partenaire amatoo fi allié amatoo fi kuy jëflante ak yow jeexle nga tàkk yow yàlla ah bu muhammad demee ba wax loola le ah, diis na keroog yonent bi geestu càmmoñ geestu ndeyjoor seet kanamam seet gannaawam mbooloo julli di ñu ngi kooñoor ñu ngi loof ñu ngi ragg ñu ngi xiif ñu ngi mar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeri koor yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ana lan la wax yàlla nee na loo ma mus a dig yow yàlla sag dig teg la tey laa ko gën a aajoo loo ma mus a ci dund gi tey laa ko gën a aajoo mata nasrullah mata nasrullah keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feeñ na dafa am lu ñu tuddee mulk ak malakuut ak jabaruut am na lu ñuy tuddee naasuut xaaxuut laaxuut waaye keroog naasuutam dafa dellu ci moom sallallahu alayhi wa sallam dafa addu ne ay yow yàlla mata nasrullah sa ndimbal gi kañ la naka la fan la yàlla ne ko ala inna nasrallahi qarib ala inna nasrallahi qarib te qarib ñetti téeméer la ak fukk ak ñaar boo ci tegee yonent bi rek mu doon ñetti téeméer ak fukk ak ñett mooy limu waa badar xaribun la ko yàlla tonte ala inna nasrallahi qarib qarib qarib ñetti téeméer la ak fukk ak ñaar boo ci tegee Seydina Muhammad rek muy ñetti téeméer ak fanweer mooy limu yonent yi mu rusul yi waaye mooy limu ña àndoon ak taaluuta ba ñuy xeexi jaaluuta badar li ko andi wax nañ ko waxaat ko yonent yàlla Muhammad sallallahu wa sallam jirim la baayoo la balaa muy ñëw àddina baay bi génn na àddina bañ ko ëmbee ñaari weer ba ñuy ñëw ci ñetteel baay bi génn na àddina mu gane àddina daanaka mun nga ne ñaari at la def ak yaayam ndax dañ ko yóbbu ci alimatu saadiya mu nàmpi def na fa ñeenti at ñib si nekk ak yaayam ba mu motalee juróomi at ci dundam ba jëm ci juróom benn at ci dundam ci la yaay ji génne àddina sallallahu alayhi wa ñu jébbal ko maamam di abdul muttalib mu teg ci ñaari at kooku it faatu yonent bi nekk ci juróom ñett at yonent bi yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam sàmm na gàddu na yat teg ci baatam dugg ci àll bi mbokk yi nañ bàyyi xel foofu xale gu amagul fukki at nangoo jël yat teg ci baatam ñu ne ko foo jëm mu ne ko sama baay tëx bii di ab di abu taalib di borom njoboot du ma ko bàyyi muy leb di dundal njobootam du ko bàyyi muy xiif di fande duma ko bàyyi muy dëñi sama baay bu nekkoon jamono duma ko seetaan kon ki bokk ak sama baay ndeeg baay sama bàyyi la damay def ci moom yonent bi génn ndeysaan sër bi yaayam doon woddoo sallallahu wa sallam moom la jël teg ci kaw boppam yat bi baayam doon doxee mu jël ko ngir barkeelu doom ñaar yi la am ndey baay wa qadaa rabbuka an laa taabudu illaa iyaahu wa bil walidayni ihsaana mi ngi def sëru yaayam kaala mi ngi yore yatu baayam ba mu génnee di jiital jur yi am di jàmm bàyyi seen xool tooy na ba seen dënn tooy xëpp ak rongoñ waaye am di jàmm yaayam bi jooy nañu keroog ba seen dënn tooy ak rongoñ ñu ne bu Abdullahi doon dund tey mbaa Aminatu lii du xew yonent ne leen wallahi bu ñu doon dund tamit lu mel ni mun na xew man dama bëgg nit ñi aju ci man man Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye bëgguma may aju ci doomi aadama dama bëgg doomi aadama yi di aju ci man man muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye bëgguma ma di aju ci doomi aadama yi kon naa def nit ñi di jëriñu waaye nit ñi di def may jëriñu dong loolu jógloowuma loolu andiwuma àddina kon ñu bàyyi loolu ci xel yi na def ngir nit ñi jëriñoo waaye ñuy def ngay jëriñoo dong yow doo def kenn di jëriñu kon sa dund lan la ci àddina bi lan moo taxoon yàlla andi la yonent yàlla muhammad ca la nekk ba mu bëgg a làq ñaar fukki at bàyyi taxam ne ko tàmbali ngaa màgg bàyyil sàmm gi ci la duggeek moom ci àll bi ne daf koy jàngal jënd ak njaay li ca xew yëg ngeen ko ci la dellusi ba mu amee ñaar fukki at ak juróom ci la génne ci njëggab xadijatu bintu xuwaylid radiallahu taala di jigéen bi njëkk a dugg ci lislaam moo tax jigéen rëlam ci lislaam dafa rëy yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi bañ ko laajee na ko taxawaayu jigéen ci lislaam lan la mu ne leen bopp jaan ci jaan lan la boo déggee jaan am na tooke bopp ba la jaan am na dangar bopp ba la waaye jaan boo daggee bopp ba jeex na buum la ci buum yi buum la ci buum yi xadijatu aljana yi gën a kawe yal na ko yàlla terale ya rab xadijatu moo labatal boppam sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wëlbatee ko ne ko toxul sama kër gi xadijatu sëy na ñaari yoon jëkkat sayidna muhammad waaye alal gi def ko def ci Seydina Muhammad def ko ci sahaaba yi ba deseetul dara yàlla nattoo musta ci ay gaayam ba mu demee ba daanaka mu xaw a dund teraanga ci biir benn semaine xadijatu di soxnaam wàcc liggéey bàyyi tëxam di abu taalib wàcc liggéey ci benn semaine kii moo ko fare woon wàllu kilifay zahir kii moo ko fare woon ci wàllu soxna di ko dëfal di ko xiirtal ci njàmbaar ci dal ci tekkeeral yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la ko yàlla rañaanee mu dem foo xam ne kaw gënu koo kawe waaye suufe gënu koo suufe aalamun maa fawqahu aalamun wa maa duunahu aalamun kaw gënu koo kawe waaye suuf gënu koo suufe foo xam ne dara nekk fa budul aalamul am la kun rek fa yakun yàlla jox ko la mu jox waa màkk xajowuñ ko ñu ne teraanga bi duñ ko bàyyi mukk mu law muy ndamam déedéet nañ ko teel a faagaagal wa is yamkuru bika alladina kafaru li yusbituuka aw yaqtuluuka aw yuxriju wa yamkuruuna wa yamkuru llah wallah xayrul nañ ko rey nañ ko génne réew mi nañu gas ko nañ ko yeew ci giléem mu koy watat ba xiif ak ma rey ko kenn ku nekk andi xalaat goo xam ne moo gën a ñaaw sa xalaatu morom yàlla na ko génnal am na ñuy ñu nar a tuub waaye tuubaguñu am na ñu dul tuub waaye danañu jur suñuy tuub am na ñu dul tuub du ñu jur kuy tuub waaye dañu am danañu am sët yu tuub sallallahu alayhi wa sallam ci la gàddaayee dem Madina al munawara fekk fa ay giit ay yahud juif ak beneen xeet bu ñu tuddee bani xasraj ak awz di ab naaw xayla yonent bi tàmbale am mbooloo tàmbale am mbooloo waa màkka ne mbooloo mi duñ ko seetaan amu ko fii màkka waaye mu nar ko am Medina bu ëllëgee mu dikk ak doole songuñu du mañu jël raayal ca kaw loolu duñ ko nangu nañ ko teel a songu gëtam ko njatamal ko faa gàggal ko mu jeex tàkk kenn dootu tuddati laa ilaha illallah muhammad rasulullah comme loolu mooy li ko jógloo waa Màkka di togg loolu di togg xalaat yooyu nañ naka la ñuy songe sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoo ko tooñ de fii du fi ne fa mu ne daañ ko fa jële lii ndax jàmm la nanguwoo ma nekk sa kër keneen fat ma nga ne doo ma bàyyi ma kooku fat danaa la far danaa la fomp loolu du jur jàmm ñuy togg ñuy togg xare boobu di togg xalaat yooyu yàlla dogal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla jox ko xibaar ne ko ah ba ngeen gàddaayee makka dem madina jël nañu seen kër yi jël seen tool yi jël seen teen lépp lu ngeen amoon di ay bien matériels lépp jël nañ ko alal googu nag la tolloog moom waa Màkka jël nañ ko jox ko Abu Sufyaan dem na réew mu ñu tuddee Shaam boo déggee Shaam tey Jordanie ci Shaam la bokk Palestine ci Shaam la bokk Syrie ci Shaam la bokk Liban ci Shaam la bokk daf mel ni boo ne suuf la waaye du benn dëkk yàlla ne ko yow Muhammad ba ngeen gàddaayee lañu ñu nangu woon ci yéen lu tolloog loolu ci alal Abu Sufyaan jël na ko dem na Shaam jëndi na dund ay teraanga ak xéewal la mi ngi ko yóbbul waa Makka kon bu ngeen ko jëlee lew na leen kon ñi naan Muhammad dafa doon dagg yoon sallallahu alayhi wa sallam dañoo déggul waxu yàlla gàddaay nga jóge Makka dem Madina ñu nangu seen tool yi nangu seeni kër nangu seeni teen nangu seeni jur da nga gàddaay loxo kese kese kese kese ñu jël lépp yàlla ne la nag lu tolloog la ñu nangu woon ci yéen jox nañ ko kenn ci waa Makka dem na di jënd teraanga mi ngi ñëw boo ko jëlee lu la lew la bàkkaat nekku ci yonte yàlla muhammad daal dina sahaaba yi ah yàlla day li ma wax mooy lii kon nañu leen kari mu yebal ñaari nit na nañu dem di gëstu lan la ñooñu ba ñu demee ba ci benn teen jigéen ñi fa la ñuy daje boo bëggee xam xibaar rek dëkk demal fa jigéen ñi daje jeex na denc wax yomb leen maa ngi jéggalu ñaari nit ñooñu Seydina Muhammad yoon ñoo ñu ñoo taxaw bi ci kanam waxuñ dañu dellu ñu dégg benn jigéen doomalebal lebal benn àndaar bés sàngam waa màkk yi danañu jaar fii ma dimbale leen wëgg seen jur yi nàndal ko la ma ca am danaa fay sa àndaar googal ñu dellu dem wax seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko abu sufiyaan mi ngi ci yoon bi di ñëw waaye abu sufiyaan tamit xelam may ko mu ñëw ca teen ba ne ndax amul ñu fi ñëw di ma laajte ñu ne déedéet moos ñu ne déedéet xanaa ñaari nit ñëw nañ taxaw fi diir dellu nañ waxuñoo kenn mu ñëw ba foofu sëgg gis ndeefu gëléem yi dem àll gëléem mu toj ko gis ci tàndarma mu ne kii waa Madina la ñoom ñoo bari tàndarma ba seen jur yi dafay lekk tàndarma mu wax waa Makka ne yéen waa Makka lépp lu ngeen yore ci ngànnaay jël leen ko Muhammad mi ngi bëgg a dogaale seen alal waa Makka képp ku génnul fay nga nit mu génn sa palaas ba mu des Abu Lahab kilifay màkk yëpp génn nañu te Abu Lahab mbokkam la de Abdul Uzza la tudd moom ak baayam ñoo bokk benn baay waaye mbokk mu bon la tabbat yadaa Abu Lahab waaye fi mu jëlee jabar la boo jëlee jabar ci ñu bon ci lu bon rek la lay jël la lay dugal jël na jabar kër goo xam ne du kër gu yiw du kër gu sell yéene du kër goo xam ne dañoo yaatu dënn jëm ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo tax ba weddi dikkee rek soxnaam weddi ay càmmiñam weddi moom it mu weddi ànd ak soxna te moom ak Seydina Muhammad ñoo bokk benn ba moo tax gis nga jigéen rek rafet na jekk na nga la ca cabax boo moytu li la cay dal doo ko nettalil kenn yal na yàlla dimbale ñu yaa rabbi keroog waa Màkka génn nañu njëgg ba mucc na ndax jaar na ca ca suuf waaye Abu Jahl nee na man duma dellu Abu Sufyaan na ko moytul dellul mu ne ko man du ma dellu danaa dem ba foofale ñu tëggal ma junjung yi rendil ma gëléem toggal ma ma lekk ñu jox ma sàngara ma naan jigéen yi soro xolle ma xupp Muhammad ba lii dootu ko tollante mu ne ko yaa ngoog yoon baa ngo demal waaye keroog del siwul de fala def moom Seydina Muhammad ba muy diisoo ak sahaaba yi mu nettali leen ne ah njëgg ba rëcc na waaye am na beneen mbooloo muy ñëw ngànnaay la àndal bu ngeen bu ngeen gëmee yàlla gëmma ndam bi yéen a koy jël ndeke mbir yi pas-pas la bu ngeen gëmee yàlla gëm na yàlla moo ma yónni ah muy xa muy seet xelaatu saxaaba yi yonent bi dafa doon diisoo ndax nit ñi ñett lañu ñett xeetu nit moo am nit ku mot xaaju nit ku dul dara nit ñett lañu nit ku mot xaaju nit ku dul dara nit ku mot mooy kan koo xam ne am na xel gu rafet te muy diisoo kooku njuum te du ko yomb abadan wala neel du juum xaaju nit mooy lan ki am xel gu rafet te du diisoo wala danay diisoo waaye amul xel gu rafet kii mooy xaaju nit ki dul dara nag amul xel te du diisoo waaye seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla bindul ku musa mel ni moom muhammadun basharun laakal bashar bal huwa kal yaaqut baynal hajar Muhammad ci biir nit ñi mi ngi mel ni benn doji nga jël jamaa sànni ko ci biir ay doj moom doo ngay melax doji duñu melax abadan yonent bi diisoog ñoom Abu Bakar ne ko yow yonent bi man xaw ma kenn ku dul yow aw ma kenn ku dul yow loo bëgg laa bëgg loo bañ laa bañ nañu dem moo ne ko jërëjëf ya Saddiq moo njëkk a takk maqaama siddiqiya ci ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Omar daal dina ko man loo bëgg bëgg naa ko loo nangu nangu naa foo jëm ma ànd caag yow lu ma jural dàq moo ma dàqal mu ne ko jërëjëf yaa faaruq moom it maqaama faaruq moo ko njëkk a takk ay aaya alquran wàcc na di ànd ak Seydina Omar beddi saxaaba yi ci des lii dara mënu ko maaye bu lu nga am maqaama boobale yàlla nañ ko yàlla may yaa rabbi yàlla telewu ko yàlla na ko yàlla may yaa rabbi danaay wax benn wax balaa may wéy ñi ko dul dégg danañ foog ne kii jëm ju fuuy la wala jëmm ji woote maqaama la wala jëmm ju bëggul ñu jox ko cër la déedéet mooy benn malaan dong la yàlla dindi mooy malaanu nubuwa yonent dootul amati moom waaye teraanga boo xalaat ci teraangay àddina yàlla li mu ca yor ay géeji géej la ni mu tëbbee ñu njëkk ña noonu la mën a tëbbee ñu mujj ñu yàlla du sippi du mën a di abada benn malaan la fi yàlla jëlee dootu ko wàcceeti mukk mooy nubuwa kenn dootul nekkati yonent waaye bu dee wilaaya la bu dee alal la bu dee nguur la lu mu mayoon ñu njëkk ña ci ay teraanga yàlla am na doole te doolem nga du sippeeku mu ci mu may ko nitu jamono moo tax ñu ñaan maqaamay faaruq boobale yàlla na ko yàlla yaatal ci ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daal di noppi kenn waxatul am benn waay bu ñu tuddee miqdaat bun amr ne yow yonent bi sallallahu alayhi wa lañ waxoon muusa ñun duñ la ko wax ba Moussa génne Égypte di dem la terre sainte di euh, di Jérusalem al arad al muqaddasa bani Israël dañ ko ne woon ñun duñu ànd ak yow izhab anta wa fa qaatila demal yàgg sa borom ngeen xeex yàlla moo la yónni dem leen ngeen xeex inna hahuna fii lañ nekk di waaye jékki ñun duñu dem demal nga xeexi nee na bani israil loolu la ñu waxoon Muusa beddi ko ñun duñu la wax loolu yow Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demal nga ànd ak sa boroom ñu ngi ànd ak yow boo doon dem ba dëkk bu ñu tuddee barkel rimaat ci réew Éthiopie te Éthiopie ci Afrique la ah boo jógee Arabie Saoudite foog nga traverser mer Rouge nga wàcc Soudan soog a dem Érythrée soog a dem Éthiopie ñu ko doon tuddee Habasha mu ne ko bu fekkoon yaa ngi doon dem dëkk bu ñu dee barkil rima ci réewu xabasa daañu ànd ak yow mu ne ko jaajëf toogal yonent bi xool na gaañ nag lu ngeen wax ndax ñii njëkk a wax ay nitam lañu waa màkka lañ ay muhajirin lañ waaye seen njaatigay lan la ñu wax lan ngeen wax am ku jóg mooy saad bun muaz moo doon sang ansaar na yow muhammad ñun ñoo la dalal jox la mbooleem cër foo jëm ñu jëm fa ak ni ñuy aaree suñuy doom ni ñuy aaree suñuy soxna noonu lañu lay aaree sallallahu alayhi wa sallam ci biir kaaraange ak yàlla boo dikkoon ba ci tefes gi nga di ko xuus daañ ko xuus ànd ak yow nga del si ànd ak jàmm wala ñu ànd ak yow foofu des waaye duñ la beddi mukk yonent bi sallallahu alayhi wa soog a muuñ bi ay boñam feeñ sallallahu alayhi wa sallam ci la ñu jëlee seen ngànnaay jël seen jumtukaay ñu tuuti lool ci lim ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñett ëppoon nañu loolu waaye am na naafeq bu fa nekkoon yal nañu yàlla musal ci naafeq benn sànkar la ci biir pañe dana ko yàq ñu ko tudde Abdullah bun Ubay bun Zalul mu dugg ci biir nit ñi di leen di yàq seen xel di yàq seen xel bel mbooloo mu bëri bàyyi yonante bi sallallahu alayhi ñu des ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñett ba leen Seydina Muhammad konte benn ñaari ñett ba ñetti téeméer fukk ñett sallallahu alayhi wa sallam dafa kontaan ah, kii day sama limu mbokk yi la gis nga ni mu oyofalee boppam newul ne kii suñu lim la ñun yonant yi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne lii day suñu lii day sama limu mbokk yi la yonant yi sallallahu alayhi moo tax xam-xamu lim bu génnee ci xam-xam jeex na tàkk xam-xamu compte mathématique algèbre géométrie xam-xamu compte calcul addition soustraction multiplication ak ban division lii xam-xamul lim bu génnee ci xam-xam rek xam-xam nekkatu ñi koy diingat ñàkk sori àlluwa la waaye lii bu génnee ci dundu doomi aadama jeexal na takk wasama rafaaha wada al mizan wada al mizan baa ngi génn mi ngi dem badar ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñett ci li gën a wér ñett fas lañu yore woon ci li gën a siiw juróomi fas juróom-ñaar fukki gëléem lañ yore woon ñële ñu ngi yore juróom-ñaar téeméeri gëléem ñii juróom-ñaar fukki gëléem ndax doole tolloo na ñii ñett fas lañ yore ci li gën a wér ci li gën a siiw juróomi fas ñële téeméeri fas ndax doole tolloo na ñële junni nit junni junni nit ñële ñetti téeméer ak fukk ak ñett ndax doole tolloo na waaye quantité ak qualité du benn saa su quantité dikkee rek qualité dóor yàlla na yàlla may qualité ya rabbi yonent bi ba mu ñëwee taxaw ak sahaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku doon déglu nit ñi la moo tax may ñaan kilifa yi diina yi xalifa généraux yi doomi sëriñ si sëriñ si nañuy déglu doomi aadama yi président yi ministre yi députés yi sénateurs yi nañu déglu doomi aadama yi yonent bi déglu na ndigal keroog sallallahu alayhi wasallam ba mu ñëwee ba wàccee bagage am benn sahaaba bu raam ba ci moom fóon loxoom sallallahu alayhi wa sallam di Habaab bun Munzir ne ko fii nga toog nii xibaaru asamaan moo la fi toog loo wala sa plaisir yi bopp la bu dee xibaaru asamaan la sa diggante ak sa borom la mënuñ ci dara waaye bu dee lii xibaaru doomi aadama kese la lii bokkul ci pas yi nu xare de xare da ngay bàyyi ndox sa gannaaw boo maree naan boo bëggee sangu-sangu ñun ay jullit lañ bu ñu bëggee jàpp ñu jàpp waaye boo bàyyee ndox sa digganteeg say ennemis sa ay yéeféer ñi ëpp la doole jël ndox mi foo jëm ah mu ne ko boo bàyyee ndox mi sa diggante gi yéeféer yi yàlla nattuñu ñu ëpp ñu doole jël ndox mi fan la ñu jëm ma reeñ kon fexeel def ndox mi sa gannaaw ñun ñuy naan di jàpp di sangu ñoom du ñu am lu ñu naan du ñu am lu ñu sangoo seen jur yi mën a naan waaye yonent dafa ne ñokket def loola la sallallahu alayhi wa sallam te kii mooy xayrul bariya lépp lu yàlla bind Muhammad moo ci gën sallallahu alayhi wa sallam ah? waaye nangu na xalaatu keneen waaye man rek maa yor dul man du keneen njuumte la man lañu war a déglu keneen warut a wax njuumte la xam-xam yu bëri dana réer waxal li nga xam nga bàyyil keneen li mu xam mu wax ko ngeen boole yëpp muy benn jëmm lii ŋàdd la lii ŋàdd la boo ko boolee muy benn kemb ŋàdd musta sax kemb rek mooy sax ŋàdd ak ŋàdd bu ñu àndee muy kemb kon andi sa xalaat kii andi xalaatam bul seet na yow président nga wala sénateur nga wala agrégation nga yore wala doctorat nga yore wala maîtrise nga yore jëmm ju nekk am na lu ca yàlla def ni kanam yi wuutee noonu la yuur yi wuutee seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu defal ko benn mbaar nangu ko de mu ne damay dugg ci xare bi ñu ne ko déedéet déedéet kon ay doomi aadama dañoo war a aar seen kilifa ay doomi aadama dañoo war a sàmm seen kilifa ci biir sàmm bi yàlla ñu ne ko dañ lay defal mbaar ci gannaaw nga nekk fa ak Abubakar bu xare bi neexee ah nga sargalanteeg ñun ñu dellu ca dëkk ba yóbbaale ndam bu xare bi yàqoo ñu teel laa rawale ndax ku dee ci ñun kenn ku dee la waaye yow boo dee àddina bu tukki la sallallahu alayhi wa sallam ca lañ ko defalee benn mbaar Abubakar nekk fa sallallahu alayhi wa sallam yore jaasam daay taxaw moo tax Seydina Aliou dafa doon ree mu ne buñ ne man Aliou man jàmbaar la mu ne def may yéem ndax bés boobu ki desoon ak Seydina Muhammad Abubakar la kon ñii ŋàññi Aboubacar dañoo xamoon Aboubacar wallahi ñii ŋàññi Aboubacar di ko xas dañoo xamoon Aboubacar waaye seen bopp la ñu xas seen bopp la ñu ŋàññ lii amee ci la ñu jàkkaarloo nag fi julli di nekkoon saleñ la dox ci neexul fi yéefiiri nekkoon kekk la nu leen neex ñu doxee yàlla andi Cyrus Camara tawloo asamaan si asamaan si taw ci kaw kekk bi mu doon ay rataxta boo seqee rek nga barastik julli di fañ nekkoon mbeeñ la yàlla sotti ca taw mu daal di fatt ñuy daw nu leen neexe yàlla na yàlla fay yàlla waa Quraysh te mooy waa màkk ñu génn ñu ne aca génn leen ñu daje lii mooy njàmbaar koor à génn leen ñu daje am ñu génn ci waa Madina waa Màkka ne déedéet suñuy mbokk la ñu ñu génn suñuy nawle waa Màkka anakan moo génn utbatu bun rabia shaybatu bun rabia ak seen doom te mooy walid yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam daal gestu ne ana ubayd ubayda bun xaaris mu ne ko maa ngi nii mu ne ko deret bii daw sama yaram sa deret la deret bii daw ci sa yaram sama deret la ñun ñooy benn mbokk bi génnal mu génn ah bi ngi génne li mu am nag mu ne ana ali mu ne ko maa ali ne ko maa ngi nii mu ne ko sama baay ak sa baay bokk benn ndey benn baay xaw ma woon sama ndey sa ndey laa xamoon di Faatimata bintu Asad kooku lañ ne ku wàcc biir bàmmeel suuf suuf naj la ba mu des kookale ngir jëfam ju baax ak jëflante ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo wàcc tëral ko ci biir bàmmeel sallallahu alayhi wa sallam Seydina mu ne ana Hamza mu ne ko maa ngi ni mu ne ko Hamza dama am ci yow ñaar suñu néegu ndey suñ ñaari maam ñoo bokk ndey ak wax ba ak wuxëy bu wuxëy bu jur sa yaay wax ba jur sama yaay kon suñu néegu ndey maag yow maag ak rakk lañ waaye sama ni sama gaño baay yàgg sama baay bokk benn baay aca génnal sallallahu alayhi wa sallam yonent bi génne na li mu am Seydina Ali xam naa moo tax oustaz jiital ko njàmbaaram mu njëkk a génn jiitu leen mi ngi dox doxin boo xam ne euh, bànjool yi sax mënta doxee noonu la karamallahu wajhahu musta sujuutal zanam même ba ko yaayam ëmbee bu génnee ne dafay dem ci jotaay jigéen ñi rek mu tàllal tànkam ci biir yaayam mu foog ne dafay matu mu dellu kër saxaaba yi kenn ci amul karamallahu wajahu bu lu seydna ali képp kuy shérif mooy sama mooy baayu alxasan mooy baayu alxuseyn mooy baayu xasanayni mooy baayu muhsin seydna yu génn dajeg walid daal di ko rey Hamza génn dajeg shaybatu bun rabia rey ko ubayda génn dajeg utba ñoom ñaar ñëpp ay mag lañ seen jaar si juyoo kenn ku nekk gaañ sa moroom Hamza ak Aliyu njëkkante jekkali ko daal di jël seen mbokk yóbbu ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci gaañu gaañu googu ci la faatoo ci la yonent bi ñàkkee kenn ci ay mbokkam yonent baa ngi ci biir mbaar ma mi ngay ñaan yow yàlla yaa xayu yaa qayyum yaa xayu yaa qayyum bekkaala bi bugg a facc am nañu ne facc na Aliou joyanti ko ne ko yàlla nangul na la sallallahu mel ni nelaw moo koy dikkee rek mu daal di xippi ay bëtam daal di muuñ ah ne ndam dikk na jibril alayhi salaam mi ngi ne la ànd ak ay malayka di dikk jibril keroog ñaari kaala la teglante dafa def kaala bu weex dellu tegaat kaala bu verte ci kawam ba seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam fi mu tëdd ca jumaam ja xubba boobale dafa verte jumaa ja weex lii mooy symbole bu lislaam vert blanc lii la lislaam am couleur bu nit am na ko jël waaye couleur gi lislaam tànn mooy vert blanc mun na jibril mi ngi ne la di dikk ànd ak ay malayka malayka yi dikku ñoon ngir xeex ngir benn malayka xajul ci ci réew xajul ci àddina waaye dañoo ñëwoon ngir baril mbooloo ma malayka xamuñoon reyante sax ba ñëwee ba wàcc taxaw di xoole yàlla daal di jëlal boppam biram nag nekk chef d'état-major général bi fadri bu fawqal anaaq dóor ci kaw ndodd yi malayka xamul fan lay reye yàlla ne dóor leen ci kaw ndodd yi wadribu minhum kulla banaani mbooleem faccuwaay yi na ngeen dóor Seydina Aliyu nee na mujj gi damay àkk bugg a jëm ci nit rek ma gis mu daan ma xam ne du man keneen la ci ginnaaw la ma Seydina Muhammad nett ne malayka yi ñoo dikkoon keroog bi su Badar ci la yonent bi tibbee suufam soosale daal di ci ñaan tu sànni mu dugg seen bët ñoom ñëpp ñu fatt mu naan sa yuhzamul jamu wa yuwalluuna na gaa ñi daañu daw saatil wujuuh ñu tampaloo na kenn xàmmetul kenn bépp poussière ba wuree bépp poussière ba daggee juróom-ñaar fukki nit la ñu rey ci yéefee jàpp ci ñoom juróom-ñaar fukki nit ah seetal ñetti téeméer a fukk ak ñett ñëli di junni ñu rey ci ñoom juróom-ñaar fukki nit jàpp ci ñoom juróom-ñaar fukki nit julli di fukki nit ak ñeent dong ñoo daanu doon ay martyr juróom benn ci muhaajirin juróom ñetti ci lansaar kon ci tënk ma soog a dugg ci bis bala ci tënk badar mi ngi noonu la yonent yàlla Muhammad mu daal di yebal ay sahaaba lu mel ni ñoom Saydu bun Xaarisata ne nañu dem bëggali waa Madina ne nañ ko teeru mi ngi ñëw yàlla may na ko ndam ndeysaan ba muy dugg ci dëkk bi rek mi ngi dajak nit ñaa ngi fëgg seen loxo ndeke doomu Seydina Muhammad la ñu suuli woon te mooy ruqiyatu inna maal usri yusran ah moo tax nitu yàlla yépp bés bii bu ñu digalee nit ñi nañ ko feetu ak bu ñu ko digalul nit ñi ñoom ñu ngi koy feetu seen biir kuy nitu yàlla buy senegal buy biti senegal àddina kull kuy jullit bésu Badr bi bu dikkee da nga ci bëgg da nga ci bànneexu doonte dajale woo ci ay mbooloo danga nga bëgg seetal euh, Maulana Cheikh Ibrahim Niass Baye Niass ba bési Badr dikkee mu jël xalimaam sëpp ci daxam bu sell boobale ana lan la Baye wax mi ngi naan liqaaun bi badrin xat saru bi zikrihi fa kullun qatilun aw asirun muqayyadu nee na man ñas Niass liqaaun bi badrin daje bi xewoon ci bésu badar nañ ma koy fàttali waaye daf may bëggloo nañ ma ko fàttali daf may bëggloo liqaaun bi badrin xat ustaru bi zikri yi nee na daje bi xewoon kër bésu badar ba yàlla toroxal yéeféer yi may julli di ndam ne fàttali ma ko mu ne def may bëggloo mu ne keroog ñii rey nañ leen ñii ñu jar jara leen ñii ñu jéng leen yàlla na ko yàlla fay yaa rabbi kon xam nga ki kii bésu badar bàyyi fonkoon na ko ba mu jël xalimaam daal bind ñu waxal ko ci ay biir téeram kilifa gu sell ga di xaadimu rasul Mawlana Cheikh Ahmadou Bamba bésu badar bii ñuy feetu mi ngi koy feetu yemu ca mu jël xalimaam bind moom sëñ Touba mu ne salli ala laysin shafa bi yow mi badrin is wafa ma as sihaabi hunafa bi ahdihil muazzam moom sëñ Tuuba mu kontaan ci bésu Badar xamatul lu muy wax mu ne ana lan laa war a wax Seydina Muhammad bu dul li yàlla waxoon ci moom ma wax ko inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi hm? inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi moom sëñ Tuuba mu daal di jël baat boobu ne salli yow yàlla loo musa yor sotti ko ci kaw gaynde gaynde lay si la wax waxul asad gaynde dafa am yuy ñamee génn guddi yem ci am yuy génn bëccëg yem ci am yuy boole di génn guddi di génn bëccëg mooy lay moom lañu naan gaynde sibi bu ko gaynde ci boppam gisee dafay lekk ñax ngir mu bàyyi ni gaynde di fàddee moom noonu lay fàddee gaynde moom sëñ Tuubaa mu ne salli yow yàlla loo musa am ci teraanga na nga ko dotti ala lay ci gaynde sibi gi ki nga xam ne shafaa moo saafara lañu jaaxaloon moo ko saafara kañ bi yoomi badrin ci keru badar is wafa ba mu teewe ma as sihaabi ànd ak ay sahaabam yu sell yooyu le ngir dëggal si la yàlla waxoon kon lii dafa doonoon honneur ci jullit yépp bés bi ñu feetu ko bés bi ñu feeñal ci taaru lislaam jamono yële am na benn kilifa ci kër làbbe fii ci senegal duma ko tuddati ndax bugg naa stabilité ci réew mi lool benn kilifa ci kër labbe mu yëkkati kàddu jëm ci man ne bésu badar am euh, am na benn xeex bu ñuy bu benn jëmm di tiitaroo ci biir réew mi waaye gàcce la ndax bésu tuur deret la ne te Isaa waxul tuur deret te boo demee ci seen téere ba ci biibul da fekk Isaa ba muy yeble mu ne yéen a ngi nii di dem bu ngeen demee képp ku ma nangulul ak ku mu doon na ngeen ko jëlee jamono te nee nañ Isaa musta wax lu demee noonu la mbokk yi tëli bi tëli bi oto bi baax moo tax ñu def ko oto bi paan na wàcc ci territoire mënatoo dem bàyyil ki mën a dem dem yow buggoo yàlla buggoo yonant bi kële bugg na yàlla bugg na yonante bi nga ne kooku kii du yegg ci kële ñu daal la tegg teg la fële ah tëli bi oto bi baax a tax ñu def tëli bi oto di dem di dikk dangaa paan wàccal ci territoire bi oto bi mun a dem dem waaye mënoo dem ki bëgg a dem nga ne du dem loolu tooñ la kéeféer yi nag loolu lañu defoon du ñu gëm du ñu bàyyi ki gëm gëm yow Muhammad doo yegg ci ñu bëgg a gëm yàlla ne tonni leen nga teg leen fële baaxuñ tànk du banku du tàlleeku waay tànk boobu ban tànk la na fa jóge bugguma sama jëkkër sama wujju du ko bugg loolu gàtt xel la lii moo andi xare yi Badar lii ci war a génn nag ci ay tomb mooy badar googale yàlla def ko junj fekk dikkagul ci ñaari saar wala aadiyaati ak soratu wa tiin wala aadiyaati ak soratu wa tiin fekk yonent baa ngi màkka de yonent baa ngi màkka gàddaayagul yàlla na ko da nga dajak ñoom tey ay jël ndam ba yàlla di ci waat wala aadiyaati dabhan wa tiini wa zaytuun waaye xare boobu yow Muhammad ñi sànkar laa bëgg nga jëlee leen foofale ñi sànkarul mën a am jàmm nite mun a dem yow yaay ki mujj ci yonant yi yow lañ yónni ci kullu doomi aadama amul benn yonant boo xam ne ak yonanteem ñépp la ba mu des Muhammad sallallahu alayhi wa même boo demee Europe wala nga dem Amérique protestant yi catholique yi orthodoxe yi judaïsme yi Isa yónniwuñ ko ci kenn ci ñooñu isaa yonenteem israil la yemoon yaa bani israil inni rasulullah ilaykum ah amérique europe asie afrique koo ci gis mu ngi dem église ne jésus lay topp isaa yónni ñu ko ci moom isaa ci benn xeet lañ ko yónni woon mooy bani israil moo tax ba mu ñëwee defe ne yaa bani israil Moussa tamit ba mu ñëwee bani israil law la téeméeri junni yonant yi ñaar fukki junni yonant yi ñeenti junni yonant yi ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kenn ku nekk say mbokk lañ la yónnee woon ñëpp yaa xaw mi lañ wax yonent yàlla luut yonent yàlla ibrahim yonent yàlla muusa haarun ñoom suaybu yonent yàlla xuut saalix nuux ñii ñëpp li ñu waxoon mooy yaa xaw mi samay mbokk muhammad rek moo ñëw ne yaa ayuhannaas ey yéen nit ñi ci ku xonq ku ñuul ku tikk ku jaune foo munti nekk boo nangoo ak boo bañee Muhammad mooy sa yoon sallallahu alayhi wa moo tax suñu diina gi nañ ko siiwal nañ ko génne buñ ko nëbb buñ ci am kerse buñ ci am lu ñuy ragal bu yàggul benn américain bu ñu tuddee James mi ngi tuub lan moo ko tuubloo benn aaya mooy wallahu ya'simuka minan naas aaya bi moo ko tuubloo yonent bi dafa amoon ay garde corps ñu koy sàmm yonent bi amoon na ay garde corps ñu koy sàmm te booba mbooloo mi bëreegul mbooloo mi bëri nag mujj gi l'islam tàmbalee di pénétrer wu di dugg ci àddina bi yëpp yàlla na ko ñi la doon garde tey nañu wàcc wàcc garde ñi amatul maag yow képp nga kenn mun laa loo kenn mun laa musal budul man moom américain bi mu daal di xalaat réew mi gën a tuuti ci réewu àddina chef de chef d'état bi gën a xeebu ci chef d'état àddina buy génn mi ngi ànd ak ay garde corps ay motard jiitu ay motard mujj gannaaw ay costume yu ñuul ay lunette ah nu ngeen koy tuddee noir fumé chef d'état lu mu tuuti tuuti buy génn garde corps yi ñu ngi ko wër ñii ñu ngi sol tenue ñii soluñu ay tenue façon fet fetal bu nekk ñu ngi ko yor mi ngi yore gilet anti bal pour buñ ko dóoree bal du dugg nga dem ba àddina gi yëpp yaa ci tiim amul ko asamaan ki tiim ku mel ni yow ñu ne la bul ànd ak garde corps wallaahu yaasumuka na naas mu ne moom ba mu déggee loolu gis yonent bi dem ba faatu faatu goo xam ne ci biir néegam la dara jotu ko mu ne moom mu xam ne kii yàlla moo ko yóbbu ci leen ashhadu an laa ilaaha illallah wa anna muhammad rasulullah jiim si lañ ko yor alquran foo ci jële mu tuub lu ay seet leen yàlla moo ne bés a ngi ñëw wala aadiyaati fas dafa am nu muy dawee fas dana jaab fas dana cal fas dana ràmb fas dana torote yàlla giñ wala aadiyaati dabax maa ngi giñ ci ñett fas yi nar a dóori téeméeri fas te fekk ñëwagul de maa ngi giñ ci ñett fas mbaa juróomi fas yi nar a dóori téeméeri fas ñetti fas yoo xam ne danañu daw ci biir téeméeri fas yi ba nga dégg seen biir di xuut xuuti dabaxan dem bay xuut xuuti ngir daw bu ñetti fas ci biir téeméeri fas dàq leen dabaxan am na beneen xeetu arab dabaxan ci ñoom mooy fas yooyu dóor nañu yéeféeri deret bi tuuru ba seen tànk riibu ni tànk jigéen di riiboo ci fuddan ñett fas wala aadaat dabaxan fal muuriyaat juróom-ñaar fukki géléem maa ngi waat doole bi ma def ci ñoom ba ñu dàq juróom-ñaar téeméeri géléem dem ba seen tànk yi ni muy songee di dóor bopp doj safara di génn ñii lokki ñii ràmb wala muriraati subhan lokki waa koon yooyu la fas ya xëyoon di lokki si géléem ya xëyoon di lokki si subhan ci suba yàlla gu teel googu ñu ànd ak seen xiif ak weeru koor fa asar na bi naqaan dem ba pënd jóg gisatoo kenn yàlla daaneel juróom-ñaar fukki kéeféer ñu jàpp juróom-ñaar fukki kéeféer fa wasat na bi jamaa dem nañ ba wër leen ndombo waaye wër ndombo ba jëriñul dara lan moo taxoon yàlla di waat hmm? inna al insaana li rabbihi lakanuut li nga doon wax ne yàlla nit la bëggoon a defar ci bésu badar mi ngi noonu la innal insaana li rabbi la kanuut nee na aadama lépp suuxal na la kër gu rafet oto bu nooy jongama bu jekk poos bu fees tepp sa jamono rek di tabax ay gratte-ciel yëkkati ay immeuble ay compte bancaire di war ci avion yi di tëgg ay ngànnaay ay télé ay portable lépp yow doomi aadama jàmbaar nga ci waaye li rabbihi lakanudun ku feeñaak la ci wàllu boroom doomu aadama ku feeñaak la ci wàllu boroomam keroog bañ fi jullee téeméeru ràkka yi am na ñoo xam ne ba bët setee génn nañu seen nekk at ba at nga julli ci nisu saabaan téeméeru ràkka yow benn guddi googu nga koy fanaan nga koy jàmbat at bi yëpp suñu téeméeri at ràkka daaw yi loo defal yàlla bët yi ngay xoolee nopp bi ngay déggee làmmiñ bi ngay waxee bëñ yi ngay yéyee seetal ni yàlla defee bëñ doomi aadama ñeent ci kanam ci kaw ci suuf ñu tuddee leen ay réewu moom dafay dagg rek mu tegal la ci ay dëgëj dëgëj dafay toj rek ay sell sell mu tegal la ci ay dëgëj dëgëj dafay dëbb rek booy lekk làmmiñ bi yéeg fatt boli tibb bi jaar ci purux dem ci mbax booy nokki mu fatt purux ngelaw jaar ci boli jëm ci xëtër ana moo koy yéegal di ko wàccee ku dul yàlla booy saw prostate bi daal di fat kanaal bi andi maniw ndax saw acide la nga saw maa nga jéggalu bu dara desul ba borom di sëy mu daal di fatt kanaal bi saw di génne ngir saw bu laalee maniw bi rek du nekk doom daf koy lakk ana mooy yëngal loole la di ko yéegal di ko wàcce ku dul zil mulki wal malakuti kon innal insaana li rabbihi lakanuut doome aadama jàmbaar la ci lu ne waaye ku feñaag la ci wàllu yàlla yàlla waat ca ca sóoratu wa tiin wa tiin wa zaytuun wa tuuri siniin wa haazal balal amin mu àndi la foofale ñeenti waaw wa tiini benn waaw wa zaytuuni ñaari waaw wa tuuri siniin ñetti waaw wa haazal baladul amin ñeenti waaw waaw juróom benn la juróom benn ba muy ñeenti ñaata la ah 24 kon 24 heures bi yow nit waroo ci dakkal dégg na bi waroo ci dakkal àddina du këru noflaay noflaay bàmmeel boo na boo muccee ci ci kaw boo ci ma baamuwaat ko wa tiin waaw la wa zaytuun waaw wa tuuri siiniin waaw wa haazal balal amin ñeent waaw waaw bu nekk juróom benn la juróom benn ba muy ñeenti yoon muy ñaata 24 heures muy guddeeg bëccëg 12 heures de temps bëccëg 12 heures de temps guddi doomi aadama nang lépp nang ko mang moo taxoon Seydina Muhammad amul war nafalay sallallahu alayhi wa sallam dana doon jaamu yàlla ba tànk bi néew mu yëkkati ko bu bu noppaloo mu tegaat ko yëkkati bale yàlla na ko tax maa anzalna alayka alqur'ana li tashqa du taaxaa de am na ñuy jàng taaxaa waaye tax la joggil wàcce wuñu alquran bi sa ko ngi nga texe di nang ci xalaat xalaatal nga joxe say xalaat ñu jëfandikoo mu jur développement andi progrès ba tey mbokk yi gisoo ñett waaw yooyu ñeenti waaw yooyu mooy li mu aaya alquran waaw ñeenti ñeenti juróom-benn bu ràngee muy ñaata six mille mooy aaya alquran ah ñeenti waaw yooyu waaw gu nekk juróom-benn la ñee ñeenti juróom-benn bu ñu àndi rek muy juróom-benn junni juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn mooy li mu aaya alquran sallallahu alayhi fay la ah am na ñu koy firi firi bi tuuti xaw a xaw a kooñoor wa tiini sayidna sayidna ibrahima la wa zaytuun sayidna isa la wa tuuri siiniin sayidna muusa la wa haazal baladul amin sayidna muhammad tiin mooy garabu ntóora tóora di tugun wolof kaana gang gang mi ngi njëkk a sax ci kaw montagne bi ñu tuddee Makuraba montagne bi ñu tuddee Makuraba ci kaw montagne boobu la gan njëkk a sax ci àddina bi ba ñu dindee gang bi rek Seydina Ibrahima fa la tabax kaaba gi yàlla ne wa tiin giñ naa ci sama kaaba gi waaye giñ naa ci sama jaam bi ko tabax di Seydina Ibrahima wa zaytun zaytun mooy olive olive fi mu njëkk sax ci àddina bi bañ ko dindee rek fa lañu tabax masjidul aqsa mooy jàkk bi nekk ci jérusalem wala orosalem ah muy cëru isa wa tuuri maa ngi giñ ci montagne bi ñu tudde tuuri diggante égypte ak palestine foofu la yàlla waxante ak seydina muusa seydina muusa dawoon dem bitim réew ba am fa soxna ku ñu naan safura di doomu yonte yàlla suwaay bu mi ngi ñibbisi mu mu bañ a jaar ci xàll bu mag bi ngir alal gi mu yore balaa ñu koy teq di ko yóbbul firawna mu jaar ci àll bi ñu réer mu seen safara ci kaw montagne loolu arab yi dañ ko doon def ngir ku réer ñëw ñu jubbanti la ku xiif ñëw ñu jox la nga lekk ba Muusaa ñëwee xool garab gi mu ngi takk xob yaa ngi takk car yi tóor tóor yi meññent yi banqaas yi datt yi reen yi sax ñu ngi ñu ngi ñu ngi takk te gisul saxat gisul tàngoor yàlla na ko nag du keneen man sa borom la na ni ana kon wa tuuri siniin ak kan wa haazal baladul amin dëkk bu wóolu gi te mooy makka dëkk boo xam ne bés mun nga ne si bu nekk téeméer ak ñaar fukki yërmande yàlla mi ngi wàcc juróom ñett fukki yi ñuy tawaaf ñaar fukki ñuy julli ñeent fukki pour ñuy julli ñaar fukki pour ñuy wëndeelu lii du dakk ba yowmal qiyaamati lan la yàlla doon waat wa tiini wa zaytuun wa tuuri siiniin wa haazal la amiin lan la ci yàlla teg laqad xalaqna al insaana fi ahsani taqwiim lépp lu ma bind yow nit yaa ma dàqal lépp lu ma bind yow nit yaa ma gënal lépp lu ma bind yow nit yaa ma gën a neex yaa ma dàqal yaa ma gënal yaa ma gën a neex kon borom war na am nu mu mel ah? nañu topp ndigal bàyyi tere nañ jiital lu yàlla soo a teg suñu àddina waaye nag doomi aadama laqad xalaqna al insaana fi ahsani taqwiim yaa ma gënal yaa ma dàqal yoo laa bëgg ah sa àddina day defar nga ko waaye innal insaana li rabbi lakanuud ci sa wàll boroom nag du feeñaa nga de kon feeñaa boobu na fi jóge jóg leen ngeen liggéeyal Seydina Muhammad jóg leen ngeen liggéeyal Seydina Muhammad jóg leen ngeen liggéeyal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jotaay bi baaxantal la ndax damay firi si alquran ni waaye am na lu ma bëgg a yabee jullit yi mooy tudd naa baytil maqdis di Jérusalem tudd naa masjidul aqsa di jumaa ji fa nekk nga xam ne mooy ñaareelu xiblay jullit yi subhaana allazi asra bi abdihi laylan min al masjidil harami ila al masjidil aqsa masjidul aqsa tey Israil mi ngi gas ci suufam bu komab te yonent ba muy dem asamaan fa la jaare ana ban jullit moo wax ana OCI ana OCI ana OCI ana ligue mondiale duwalu arabia ligue ligue arabe ana ñuy toppatoo droit de jumaa joo xam ne yonent bi jublu na foofu julli at ak genn wàll muy xiblay Muusa di xiblay Isa yàlla na jox ko Seydina Muhammad tey te yahudi ñu ngi gas ci ronam ne dañuy génne temple bu daawit jàngu bu daawuda la ñuy génnee bàyyi yonte yàlla suleymaan wallahi du dëgg bañ fa nekkee ba léegi lu paase ñaar fukki at ñu ngi koy gas bu fa nekkoon ne gën gis nañ ko ne gën màbb nañ jàkka jooju julli jàng ne tekk kenn waxu ba daaw gas nañ ba dugg ci benn école xale yi ñu ngi jàng rek bi école bi daal di màbb dugg ci biir kaaw bi ana kan moo wax bu doon jullite ko defee na ñu ne terroriste la ah? ana ban kilifa diina ban xalifa général ana ban doomi sëriñ moo tax ren ba ma déggee njobootu seexal islaam islam ne ñu ngi fësal yowmul aqsa dama sant yàlla xam ne seen bàyyi noonu la meloon Jean Lefebvre Jean Lefebvre bi ñu tuddee société bi wax ma société bi Jean Lefebvre kenn la woon ci kilifay jànguy catholique fii ci Dakar avant indépendance dafa songu l'islam waaye bi mu songee lislaam bàyyi dafa cippeelu ci kawam ca la yàqu yàqeet nit yàlla yi noonu lañ meloon xaadimu rasul noonu la meloon alxaji malik noonu la meloon maam maam alaaji abdoulaye ñas noonu la meloon cheikh omar fuuti noonu la meloon waaye yàccaaral gi nekk tey ci sëriñ si kenn mosoo gis israël mi ngi rey rek dem be ay bomb yoo xam ne phosphorique la dañ ko interdit ci àddina gi yëpp daaw jëg ci weeru koor mu koy sotti ci Gaza di ko so di rey jigéen yi di rey xale yi di rey màgget yi ñuy daw di dugg ci biir jàkka yi ñuy màbb ba màbb ay lu teg ay fukki ay fukki juma ay fukki jàkka di dem kenn waxul ci jullit ñu ngi ñooñ daal di leen embargo ñaata at dara du dugg dara du génn te benn benn juif bu ñu tuddee benn goryoon ah moom ak ku ñu tuddee Menahem Begin ah ak madame Golda madame Golda jàpp ñoom Aba Ebaan ñoom Mos Dayan mooy ki doon taf bëtam bi ah dañoo ne Palestine mënuñ ko moom ci politique mënuñ ko moom ci loi ci liñ ko mën a moomee mooy nañ ko def mbiru diina ne ku doon yahut ci àddina bi boo gàddaayul dem foofu nekk ko yahut ngir fépp fu yahut nekk nañu waaye xibla boobu bés bu rëccee ummatu Muhammad ñun ñëpp suñu alkane ci lañu julli di tey dañoo dem ba def leen comme ñu jafru fu ñu gis jullit ñu leen di kalli kalli bi leen wangi wangi ba jullit dañuy nëbbu seen lislaam léegi boo demee France ñu ngi naan bu ñu def seen kii boobu seen ah, seen fulaar yi boo demee Suisse Suisse moom dafa tiit ba caalit ndax ñeenti jumaa moo fa nekkoon yu am sooro ba ñuy geestu fekk jumaay passé nañ téeméer ñu ne bu benn jumaa amati sooro te fa la banque mondiale nekk alalu julli de fa lañ nekk bu ñu rocce seen alal tey ñu bàyyi jumaa yi am sooro seetal réewu Soudan di ay jullit ñu xam ne sud bi yëpp pétrole moo ci nekk ñu ne kon nañ ko dagg mu jóge ci nord bi nañ ne yéen arab ngeen yéen ay nit ku ñuul ngeen Omar Bachir rey na nangam rey na nangam nañ ko topp fu mu wàcc ci àdduna bi nañ ko téye atte ko ki toj Irak nag George Bush lu tax atte wuñ ko ki toj Afghanistan ay million ngi doomi aadama ba tey ñu ngi dee lu tax lu tax atte wuñ ko li mu doon wax li nekkoon Irak ndax feeñ na waaye ñu ngi koy wang-wangal kenn du tudd George Bush waaye ragal dee ñàkk ragal dee kàddu gi dana génn ci gémmiñ gi ak lu mu ko jural ëllëg Seydina Yuusufa def na ci kaso lu passé juróom-ñaari at teewul mu génn mu nekk rasul nekk nabi nekk malik Serigne Touba 1895 ñu ne coom du fi xew yóbbu ko ba 1902 newaat ay weer ñu daal di génnewaat yóbbu gànnaar ba tey fu jant bi tiim tiim na fa taalibe sëñ Tuuba kon liggéeyal yàlla jullit na ci yemale lépp dee ak dund na ci yem na ngeen liggéey li ñu naan Amnesty International seetal fi ñu tuddee Kosovo ex Yougoslavie ah fi maréchal Tito nekkoon du dafa toj nekk ay état état serbe yi fi kii rey ay ay fu ay junni junni jullit nan la tribunal bi mujj a def blanchir nañ ko ne deful dara nañ ko bàyyi mu dem ci yoon ñu bëgg a toj beneen réew ngir jëriñoo pétrole ba daal dina président réew ma comme jullit la rek nañ ko yuuxu ne nañ ko jàpp tëj ko jullit yi démb bi teraloon suñu maam yi jubb gi ñu amoon ba raw buñ ko wootee rek ñu dellu ci gannaaw Israël li muy naan ne ron jàkka jooju ron jumaa jooju masjidu aqsa ne temple bu Souleymane fa la nekkoon bu doon am na alquran wax ko yonte yàlla yàlla wax ne léppam ah yonte ba muy ba muy faslan ba muy duggante bilqiis ah bilqiis mooy reen bi nekkoon saba ba mu koy takk fi mu jaar ba jël ko yàlla nett na ko ci alquran picc bi ko doon tiim hut hut yàlla wax na ko ci alquran ah xorondom bi doon waxante ak yonte yàlla Souleymane Souleymane di tukki ay xorondom kenn ci ñoom ne leen dugg leen seen kër Souleymane a ngi ñëw balaa armée bi di leen nappaaje Souleymane daal di ree ah ne mayu yàlla rëy na ci man ni may déggee waxu nit maa ngi dégg waxu xorondom noonu la yàlla tudd na lii ci alquran Souleymane amoon na tapi tappi goo xam ne bu ca toogee day naaw ak moom doon roppilaan yàlla tudd na ko ci alquran kon temple boobu bu fa amoon yàlla tudd ko li tudd loo yàlla melentaan kay dana ko doon tudd loo jàkk jum tabax kon loolu ay fenn la benn temple musaxaane yàlla na yàlla fan yii maa ngi dégg ay coow coow yi dinaa ci àddu yalwaankat yi yalwaankat yi yalwaankat yi yalwaankat yi mbokk yi ku yàlla xañ ñaari bët te mënoon la ko xañ yow ministre bi mënoon la ko xañ yow président de la république ki yàlla luuloo mun ta wax yow yàlla bind la nga dem bi am ay agrégation am ay maîtrise am doctorat ngay wax ñu lay dégg yàlla xañ ko kële mun wax te mu mënoon la ko xañ yow ke la yàlla lafañ loo ko yow booy dox sa dàll ci sa tànk lay nekk lafañ bu buy dox dàllam ci loxoom lay nekk bi ngay dar ah yow yaa ngi def dàll ci sa tànk kële mi ngi def dàll ci loxoom darangu na ba tubéenam yëpp yàqu na nga munoon ko jox benn fuus fuus defal ko benn projet mu bàyyi yalwaan nga ne ko bàyyil yalwaan am na ku fi nekkoon ba sécheresse bi amee ci am na ku fi nekkoon di président ba sécheresse bi amee mu na nañu fexee wàññi béy yi dañ fexe wàññi béy yi ndax béy yi dañuy lekk garab yépp xob yi asamaan si du mën a taw béy yi demuñ te moom dem na am na président bu fi nekkoon nee na nodd yu biir Dakar dafay yee tubaab yi touristes yi dafay yee corps diplomatique yi nañu wàññi nodd yi moom dem na te tey la nodd yi gën a bëri kon nañu nañ leen dàq borom dana dem bàyyi fi yalwaankat yi di tàllal seen loxo ummatu Muhammad di leen dimbal koo xam ne loxoom bi juróomi dërëm yooyu lay dajale fay luyaasam jàng doomam ca la koy fayee bu feebare ca lay fajoo nga ne ko na bàyyi te wuutaloo ko dara juróomi saako ceeb mënut a jëriñ doomi aadama ci biir at naka ko am jabar am ay doom nag waaye miskinu yàlla yi seen rongoñ képp ku ko tuur da nga yàqul miskinu yàlla yi ku leen jooyloo sa mujj dana ñaaw doo dee ci baatu laa ilaha illallah muhammad rasulullah nañ ne nañ dem ci jàkka ja toog xaar nit ñi ana kan mooy dem ci jàkka yi kan moo leen fay fekk di leen jox jàkk ji anakal moo ci dem nit ñi dem ci estati tey moo leen dàqal dem ci jàkk dem seetaane estati te estati dafa araam ba yowmal xiyaamati bu yeboon nañu def estati Makka nañ ko def Medina nañ ko def université Azhar nañ ko def Zaytun fu leen neex nañu def estati ci àddina bi du daggan ba yowmal xiyaamati lu bon bu ko ñëpp doon def du tax mu baax lu baax bu ko ñëpp bàyyi woon du tax mu bon te bépp jullit bu taxaw ci kero estati di ko xool ngir bànneex bés bi ngay dee buñ na laa ilaha illallah doo ko mën a wax te seydina muhammad nee na man kaana aaxiru kalaamu laa ilaha illallah daxal aljanna képp ku sa mujj baat nekk laa ilaha illallah aljanna mooy sa cër kon képp booy sukuraat nekkatoo ministre booy sukuraat nekkatoo président booy sukuraat nekkatoo député booy sukuraat nekkatoo magistrat bi booy sukuraat nekkatoo sénateur bi keroog sa xarit yëpp daw nañu yaa ngi yuut ci sa kaw lal am ku la jegeñ di ko fomp tey da nga génn àddina dootoo dellu assemblée nationale dootoo dellu ca sénat ba doo dellu palais présidentiel doo dellu primature doo dellu fen tey danga nga génn dëkk bi boo nekkoon Champs-Élysées ca France da ko génn boo nekkoon Kremlin ci Union soviétique da nga ko wàcc boo nekkoon Maison Blanche da ko génn foo mun munti nekk keroog da nga ko génn boo duggoon ci biir kaaba gi da ko génn ñu gas ba mu xool duggal la ca biir nga des fa ak sa jëf lépp loo jiitu woon nga dem encaissé ji ko sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp kër yëpp ñu ngi fi tey dara andiwu leen fi bu dul xaalisan li wajhillahi wa li rasul ah li ma li ma bëgg xalika li ma bëgg mooy man bañu ma fiiti par par laa bañ jëmm bu baax a ngi ni toog njobooti bàyyi la njaboot Cheikh Ham Cheikh Mouhamed Hamahullah Haydara mu ngi fii njaboot Cheikh Omar Fouti ñu ngi fi fu neex nit na téye lépp loo téye xablul wusul la ci yàlla nga jëm te da nga am yàlla nekkal murit nekkal tijaan nekkal laayeen nekkal xaadir naqsabandi turaabi xaatimi dabaari mirrani tariqa bu la neex jëlal man maa ngi ànd ak ci loolal tariqa yëpp yàlla seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu yàggul maa ngi siyaara ji Medina Baye sama chauffeur bi mu gaare oto bi ma bàyyi samay dàll ci biir oto bi ma wàcce di dox ak tànk neen mu ne ma naaj ju tàng na de doo sol dàll yi bi nga ma yërëm waaye man li ma seet suuf soo xam ne cheikh al islam mi ngi ca tëdd naka laa ci solee dàll Touba hakaza man noonu laa cee demee yoof noonu laa fay demee Tiwaawoon noonu laa fay demee nitu yàlla yëpp par parloo moo baaxul boo demee Makka fi nga jublu di julli am na ku ko jox gannaaw di julli te yéen ñaar yëpp seen julli wér na ma ne boo demee Makka di julli ci Kaaba gi fi nga jàkkaarloo di julli am na ko jox gannaaw foofu di julli te sa julli wér na julleen wér na kon féete dara nekku ci yàlla moo yàlla féetale na yonte yàlla Muhammad féetale na ba Badar passé dafa dajale saxaaba yi ne juróom-ñaar fukk yi ma jàpp ngeen jàpp lu ñu ci war def Aboubacar ne say mbokk lañ mu a yow de yaa yonent yàlla ibrahim ci xolam bu nooy ba mu ne omar loo wax mu a ñu rey leen ñoom ñëpp mu ne ko yaa yonent yàlla nuux rabbi laa tazar alal ardi minal kaafirina dayaaran yàlla reyal ñëpp seetal yonent bi féete la na ba kii waxee kamu niral jikko mu ne yow yaay kooku ba kii waxee kamu niral mu ne yaay kooku waaye par parloo nag baaxul li ma yore ku ko yorewul nekkoo ci dara loolu du maandu li mun a ànd doon fukk fekk du ñaari juróom bëri na li mun a ànd doon fukk fekk du ñaari juróom bari na ñaari juróom fukk la juróom-ñeent ak dërëm fukk la juróom ak ñaar dërëm fukk la juróom ak ñett fukk la juróom-benn ak ñeent fukk la waaye ne bi ma yore moom rek a baax bi keneen yore baaxul loolu dafay andi ŋaayoo dafay andi fenqaloo dafa ñuy néewal ñun ummatu muhammad sant naa leen gërëm naa leen gis naa taxawaay bi ci solo yi kenn tuutilu sama mbir kenn xeebul sama mbir ñépp jox nañ ma gëdd bëgg nañ ma sopp nañ ma ormal nañ ma maa ngi ñaan ci barke yi weeru koor gi mucc àddina mucc àllaaxira yàlla na ngeen ko am yaa rabbi boñ bu leen nar a ree yaa allahu ci barke yi weeru koor bi yàlla bu mu yàlla bu mu sax ci gémmiñ seen yëngu seen dal yàlla na yàlla yàlla na yàlla fay yàlla yàlla na yàlla fay yàlla اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال يا حي يا قيوم اللهم يسر ولا تعسر اللهم سهل ولا تسقل اللهم لين ولا تشدد بمهد فضلك وبجود كرمك يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال سبحان ربك ذي العزة عما يصفون والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس دعاهم فيها سبحانك اللهم وتعالى فيها سلام فيها سلام فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا